waaleykum salaam wa rahmatullah euh, ñu ngi lay fay bu baax sëñ góor di la nuyu bu baax yaa ak sama xarit euh, di nuyu mbooleem koo xam ne rek yaa ngi ñuy gis ci jamono bii ci Dakaractu foo mën a nekk euh, ci biir réew mi ak ci bitim réew di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ bi ginnaaw doon doomi soxna jamono yi la ci ginnaaw ku ne xam na ni Touba amoon na ay yëngu-yëngu yu fa amoon ba sëriñ bi. génn naqarlu ko lool. waa kay sant naa yàlla bu baax sax bi ma laajee loolu ndax may dafa doonoon sama naqar gannaaw bi mu doonoon naqaru sëñ bi doon naqaru murit yëpp ma yàggoon ci am bëgg am occasion fu ma ko waxee far am occasion tey jii war cee wax sama xalaat euh, en tant que taalibe ci fii ci Dakaractu euh, loolu nag mu doon loo xam ne euh, dañoo war a defaraat sunu laxasaay tuuti ndax ab taalibe. Euh, dafa am nu ñu ko xamee te loolu euh, euh, dafa doonoon identité identité taalibe murit mu doon loo xam ne loolu bu nu ko wàcc ndax taalibe moom warta xaar bañ di ko soññi ci ab doxinam taalibe dëgg kon suñ demee nag ba yegg ci di xaw a mel na luy meraloo sëñ bi ndax ñoom sax duñ mer ndax dañoo mat sëkk macha allah yàlla dalee na a préparé Euh, su ko defee loolu day doon loo xam ne dafay ëpp te gënul ci ñun euh, rawatina ñu nekk ci jamono boo xam ne jamonoy tolof tolof la bëgg cee génn yaakaar ci yàlla euh, yaakaar leen ci kon loolu dañ koy wattandiku su ko defee sëriñ bi moom lim ñu bëggal kenn ku ne xam na ko te lim ñu bëggal moom la ñu njiiti réew mi bëggal moom lañu ñu nit yi kilifa yi bëggal ndax mbir dafa am mu wàcc muy mbirum suñu borom. te euh, euh, mbirum sunu boroom nag bu wàccee gannaaw bu bi nga xamee ne euh, ñaan ko ak delloo ko ci moom weesoo jël ay fàggandiku def ci am solo looloo waral yu bëri amoon nga gis sëñ bi ni mu ci farloo taxaw ci taxawin boo xam ñun ñëpp gis nañ ko su ko defee loolu bu ci nekkee di ñu dimbali te ñoom bu la neexoon du leen ci fekk waaw te te te te mën nañoo mucc waaye euh, ñoom euh, dañoo talut sax dañoo talut seen bopp rek doomu ah, yitte gannaaw bi yittee suñu borom weesoo yitte doomu aadama yi a ñor ba tax mu doxee ci noonu ànd ceeg njiiti réew mi su ko defee euh, loolu kon kenn ku ne war naa xam ne loolu rek la ci jublu ba tax na ñun ñoo ci war a gën a farlu ndax suñu yitte la kon loolu damay ñaan. Euh, benn taalibe bu mu xalaatati di bokk ci yu ni mel euh, ba bay doxe noo xam ne day yëngal sëñ bi ba mel na lu koy merloo waaw su ko defee loolu daal dana yàq ak taalibe ndax taalibe mën nga euh, liggéey mbir ci ay at benn minute ñëw rek nga yàq ko waaw su ko defee loolu lu jara moytu la waaw kay sëñ bi léeg-léeg nga dégg ku wax ba ne corona bi amul waaw loolu moom su ma ko déggee reetaan dafa may jàpp ndax Euh, boo xoolee sunu kilifa diine yi laa koy njëkkee ku mel na sëñ Muntaxa ku mel na Cheikh Mansour euh, sëñ Mbay Si Mansour ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér euh, di ku mel ne kilifa yi diine yëpp nga gis farlu gi ci am rawatina Cheikh Sidul Muntaxa nga xam ne moom da ngaa gis bi yëf yi amee rek laataa dara xew daa yëkkati alam alalam ju bëri jox ko njiital réew mi na ko ànd naag ci yow ñu fa yéene xeex lii ngir sunu askan mucc ci loolu defe naa ne bu doon ay caaxaan du jaral sëñ bi loolu ndax ñoom dañuy gis ci zaahir di gis ci baatin <laughs> waaw euh, bu bu fekkoon ne euh, nekk na loo xam ne ay caaxaan la wala amut yaakaar naa ni euh, du du ko doxalee noonu loolu rek boobu junjoon na wane ne yoon wi ñu demaat tuuti mu soññ waa ci kanam ne buñ ko mënee na nañuy jàpp ci ñi nekk ci hôpital yi yemul foofu mu farlu ci lool nag ci wax ñu. tëj jàkka yi ak jumaa yi wàññi nombre yu fay jullee kenn ku ne lu ëpp ci doomu aadam yi yam fa nga nekk di fa jaamu yàlla te ak jaamu yàlla ni mu fare kenn ku ne xam sëñ Tuubaa fi yegg mu julli ba julli fu kenn jullit muy géej euh, defe naa ni bu demee ba taxaw ne nañ tëj jàkka yi euh, kenn ku nekk di julli fa nga doon julli loolu jublu ci lu dul euh, mbir mi dafa am te lu wér la te mi ngi ci jublu Euh, euh, euh, maanaam fegul doomu adama yi kon defe naa ni su ma déggee ñu naan amul loolu reetaan daf may jàpp yamul foofu yàlla ak seen ñaan sax a tax waaye ku gis réew yi nga xam ne suñuy mbokk nga fa muy waa bitim réew yi maa ngi leen sax nuyu waale ci profito ak di leen masso waale nga gis la fa faatu ci ay doomu aadama te tubaab yi li leen yàlla may dégg nga Euh, ci ci ci mën a fàggandiku ak mën a fegu ci zahir euh, lam fa faagaagal gënalu leen kon bu loolu lépp bu amee yaakaar naa ni ku koy euh, dégg naan amul loolu waaw te kéemaanu suñu borom sax weesu na foofu kon feebar bi lu wér la nga gis président de la république li mu ko jaral mu sonn ci investir ci alalam saa su nekk mu jënd di ci wax di yabal ay ndaw ñu di ci wax Euh, kon yaakaar naa ni ba mu jaral ñu tëj suñuy frontière tëj suñuy école tëj suñuy daara yaakaar naa ne loolu bu doon caaxaan euh, kenn du ko def waaw kon su ko defee nit ñi nañuy doxee xel tuuti te bañ di jiital suñuy bëgg-bëgg ba tax euh, suñu njariñ duñ ko sax bëgg a gis loolu defe naa ni réer mënta passé loolu su ko defee nañ jéem a dellusiwaat tuuti di jéem a nekk ay nit ci yu mel nii boo amatee ñu farlu ci nit ñu koy digalee ak di ñu ko sante ndax defe naa nag euh, nit ku ne lañ lay digal mooy sa njariñ yaa ci war a jiitu mm-hmm. waaw su ko defee kenn ku ne bu ko xamee woon noonu rek yii am yëpp du fi ne amee kon jàngoro ji jeex na bu yàgg mm-hmm. ndax buñ digle buñ defoon li njiitu réew diglee ak li ñu suñu kilifa yi digal kon heure bi tawet bi mënoon naa jeex bu yàgg ndax euh, ni dayo bi mu am ci yeneen réew amu ko fa euh, eggagu fa naam lu diis la ndax benn ket bu ko dalee lu rëy la waaye ñooñu gën a mettile waaye seenu farlu ak seenu kii moo tax euh, tey jii ñu dem bañ naan wàññi na fa kon ñun ñi nga xam ne euh, liñ ci amagus néew te mu rëy lool nag euh, kon buñ ci farlu woon ci li ñuy digal rek ñu di ko def yaakaar naa ni ak di diglu suñu kilifa yi incha allah daal dina jeex te incha allah nañ gën a farlu ci loolu ndax jëf yi jeexagul mm-hmm. mi ngi fi te lu wér la nag waaw te lu wér a wér a la mm-hmm. waaw su ko defee ñu ñu farlu ci te ñaan yàlla suñu borom nag mu jeexal ko ba kenn ku ne mën a delluwaat ci sa sëñ bi lu mel ni bu masaana am di mbas mag ñi daan nañu am lu ñu daan jëfandikoo. waaw loolu moom daan na am mm, yàgg naa am ndax mbas boo ko xoolee téeméeri at yu ne day am maanaam suñu borom moo koy dogale noonu ngir fàttali nit ñi moom yàlla moom rek mooy yàlla euh, bu koy indi itam du tàggoo te buy ñëwit day jaaxal nit ñi lool laataa ñu cay ami pexe ba nga xam ne xel yëpp day dellu ci yàlla. waaye saa fu masaana am itam du tere sunu mag ñi baax ñi du leen tere gëm yàlla du leen tere euh, def lañ war a def du leen tere ñaan euh, su ko defee ba keroog yàlla du ko fi jëlee. te itam am na ay fàgguteef ndax man euh, laataa lool rek man mas naa toog bind Covid mm. bi ma bindee Covid bind 19 ma gis 19. jàpp turu yàlla muy bismillahi rahmaani rahim boo ko euh, calculer euh, par xuroof dix-neuf xuroof la lay jox muy dix-neuf ma bind Covid mu jox ma cent quatre te cent quatre mooy samadu ma gëstu xool téere yu bëri yi Sëñ Tuubaa bind te muy musla ci mbas samadu la ko tëggee mm-hmm. ma gis euh, tamit lexlaas saatuk samadu googu alxuraan yëpp maanaam bu guddee maanaam bu ñuy tëddi di fanaan ci saatuk samaat lañuy la fanaan ma xam ne kon feebar bi ñëw na waaye mbirum suñu borom la te baatin la te ñaan yàlla mën na ci musle euh, nga xam ne nekkuma sax doon ko wax ci rajo waaye ku ma mës a gis danaa ne la fexeel ba ngay def 19 la wala ngay def sama samadu boo ci mënee boole 104 doomi tàndar ba nga saraxa ko baax na ci dana musle ci ci ci ci li nga xam ne mooy mbas mi ba képp ku ko def euh, yàlla mën na la cee musal ndax ñu nit dañuy def suñu wàll ci li nga xam ne mooy euh, lépp luy fàggandiku ci ñu waaw euh, ci ñu tax mu musal ñu ci liy lore ci réew mi ci àdduna bi yëpp rek ñu joxe ci suñu wàllu gannaaw bi ñu defee nag tere yi nga xam ne docteur yi digle nañ ko ak nguur gi waaw boole saayir ak baati ndax loolu dafay dafay lu yenu maanaa te dafay yàgg waaw su ko defee euh, nga xam ne kon loolu am na du fi jug maanaam lépp loo xam ne ay ñaan la yoo xam ne dafa daa musla ci mbas comme Sëñ Tuubaa bind na ko xasida googu biñ bis bi mu amee rek Sëñ Muntaxa dafa daal di wax mu mu doon xasida gu ñuy faral di jàng waaw di ci yéene di ñaan yàlla jële ko fi su ko defee yooyu am na yàgg na fi du fi jug ndax euh, mbas moo fi yàgg muy doon kéemaanu suñu borom boo xam ne doo koy faral di wàcc ngir fàttali doomu aadama yi ci ci ñu xam ne moom yàlla buur bi subhaanahu wa taala moom moo ñu moom moo sàkk waaw. sëñ bi ku xam ne ni jamono yi euh, euh, sa soppe yi mooy Modou Modou sonn nañu euh, at mu ne nga fa daan dem di leen dimbali. xanaa mbas mi xëj na xaw a tëccoo ni waaye xam naa ni ñu ngi lay xaar ñoom tamit. waaw moom wax dëgg yàlla ñu ngi may di ma nag saa su nekk ndax dafa naa ne diirub ñaari weer xam ne ñetti weer yi nga xam ne lii mi ngi xew ba léegi terewul bés bu nekk euh, dinaa am ci ñoom ay appels yu bëree bëri waaye ku ma ci jot it li may njëkk a def mooy masawu la dalal la te xam ne lii yàlla moo ko fi indi muy loo xam ne kéemaanu suñu borom la euh, euh, ñu xam ne rek incha allah dana dem ba jeex ci kàttanu yàlla ndeysaan ñu ñuy farlu lool nag ci di ma laaj kañ laay ñëwaat ak yooyu waaye incha allah bu yàlla defee yii jeex rek ak jàmm fas nañu yéen a dellu siwaat foofu ci réew mi. def ndax surtout jamono ji nga xam ne sax xel yi ak mhm. xol yi yëpp mhm. jaaxle na lënt na waaye nag loolu moom yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu ko maanaam fu ñu jaaxlee rek euh, nañ dem ci ñaan ñaan yàlla ñaan yàlla ndax la du'aa silaahul la ñaan mooy ngànnaayu jullit te yàlla ci boppam tamit moo ne ñaan leen ma ma may leen kon su ko defee euh, xam naa ni aajowoo nañ ko soxlawoo nañ ko daañ ko def nañ ko daan defee bu yi jeexee ba bunt yi ubbiwaat ñëw fa xettaliwaat doomu aadama yi ci li nga xam ne moom la ñu yàlla baaxe euh, te yàlla defal na ko euh, incha allah rabbal alamin sëñ bi xam sama laaj bu mujj rek euh, sa digganteeg sëñ Moustapha Imam waaw sëñ Moustapha Imam sama digganteeg moom dafa foor te dafa rëy ndax dafa doon loo xam ne dafa weesu waajur ndax gannaaw ba mu doonee sama nijaay sama sëriñ la te sëriñ boobu nag laa jël man féetewoo ko sax ndax tey jii sëñ Abdou Khafor mi nga xam ne moom laa yaakaar moom moo ko fi nekkal euh, mu doon nag nit koo xam ne nitu yàlla bërki démb la ko sëñ mun woo lu jafe mhm. image yi daw na fu ne euh, nga xam ne sëñ bi da ko woo na ko doyuma la dara dama la doon wax ne rek li nga li nga war a nekk yëpp yaa ngi ci lekk dinaa la jox image bi soo ko ci mën a dugal sax ñu gis ko su ko defee euh, mu doon royuwaay ndax doo ko dégg ci lenn lu dul liggéeyal yàlla mhm. liggéeyal yonent bi liggéeyal sëñ tubaa ak defar doomu aadama yi sëñ Moustapha turam xëy na siw na waaye euh, li mu jëf euh, euh, bu turam siiwee woon noonu dana doon koo xam ne defe naa ni nit ñi dana ne kii fu mu nekkoon ndax li mu jëf ci ci ci Sénégal jëf ko ci àdduna bi jëf ko ci doomu aadama yi mënuma la ko wax mi ngi tabax ay jàkka mi ngi defar ay daara mi ngi ma nga ca tool ya nekkul ci lu dul lu neex yàlla yonent bi ak sëñ bi Euh, man euh, ci loolu laa ko gën a soppee waaw gannaaw bu mu nekkee sama sëriñ mu doon koo xam ne may daf ma bëgg lool bërki démb laa fa jóge maa ngi lay woon seede si mu yëkkati euh, loo xam ne rëy na ci man lool ma ma di ko ci sant fu mu mën a toll te di ko ci di ko ndamoo ndax dafa doon loo xam ne dafa rëy woo ma ba ci biir néegam yëkkati li jox ma ne ma sama waajur sëñ Abdul Xafoor Mbàkke moo ma ko jox yëkkati maxtum yëkkati mbaxana yëkkati saak yëkkati ay mbir yeneen yoo xam ne mbiri baatin la joxuma ko ne ma mayit damaa xam ne ci li nga war a nekk rek nga nekk nekkoo ci dara lu ma metti loolu mu doon lu rëy ci man euh, soññ ma euh, ci loolu nag mu doon loo xam ne dafa ma delloowaat ci ak taalibe soññ ndax ab taalibe moom ni mu war a mel mooy fu ko sëriñ woowe woowee dagg ko sant ko rek na xam ne da ko junj na ko na nga gën a laxasaat euh, laxasaat sa kii sëriñ Moussa muy doon nag roy waay boo xam ne bàyyi faal la ci yoonu murit Euh, nga xam ne ci jëfu sëñ Tuubaa ci nga koy ci dégg waaye ci ci lu neex sëñ Tuubaa nga koy dégg ak ci lu neex yàlla waaye doo ko dégg ci ci leneen nga xam ni ndeysaan ku ku àdduna soof la ku soof àdduna la astafurlaa ku àdduna soof la euh, lu dul yàlla ak yonent bi ñoru ko waaw waaw macha allah ñu koy ñaanal mu yàgg fi di wér nga xam ne sama diggante moom dafa doon lu rëy loo xam ne euh, ku may dégg te bokk ci kër ga rek xam nga ko bërki dem rek ci mujj ndax li ma defal ay doomam yëpp nga fa ci seen kanam la ko def xëcc ma woo ma ba ci biir néegam defal ma ko xëy na euh, ba te lam ca teg ba mu pare daf ma ne loo moom la ba ma koy sant dafa ma ne lii loo moom la rek saa la li ma am waaw daan na ma góorgóorul nekkal ci li nga war a nekk moo tax ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg fi te wér di ñaanal bu baax nag suñu jàmbaar ji Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, nga xam ne kiir laay la ci réew mi kiir laay la ci àdduna bi rawatina ci ñun taalibe yi kon na fi yàgg te wér ndax euh, wax dëgg yàlla lim ñuy jariñ àdduna bi yëpp nga koy gis te ni mu ko waxee rek nañ xool ci moom buñ xoolee ci moom rek daañ mel ni nga xam ne noonu la yàlla bëgg yonent bi bëgg ko di leen gërëm bu baax nag yow sëñ buur euh, di gërëm bu baax sama xarit euh, sëñ sele ak waa Dakar Actu yëpp Euh, di gërëm mboolem euh, ku ñuy suivre euh, di nuyu bu baax nag sunu xarit sunu wóolare sëñ Pape Diagne ca nant di nuyu maître Souleymane Fall di taalibib Serigne Touba ku gëm Serigne Touba nekk ca Paris ak Serigne Momar Ndour di mu xaddamu Cheikh Ibrahim ñas nekk ca Allemagne di nuyu tamit sëñ Abdourahmane Ogo di mu xaddamu Cheikh Ibrahim ñas nekk ca Suède di gërëm ku ñuy wax Abdoulaye Diaye te nekk ci. Euh, France Ivry sur Seine ñoo ñëpp may tudd dañ di ay samay soppe bokkuñu génn kër bokkuñu fu ñuy euh, xëy waaye nag ñoo bokk yàlla bokk yonent bi ba noppi ñu di samay soppe bëgg ma fonk ma di ma encadré di ma taxaw bu ma ñëwee bitim réew kon fu ma mën a jaar bu ma ak fu ma mën a nekk dinaa leen nuyu dinaa leen gërëm dinaa leen sant ak ñeneen ak ñeneen dafi dul xaj rek di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala